Siapa Bamba moo am gëm leen ko am leen ko bañ woo yéen te ngeen gorewaat fe dar bu te ñom duñu Cheikh Bamba dong di bar wax na ko dellu waxaat ni ko kat wat di ak fotokat su bu naa mbubbum fotokat tek ko ne di mus lu ci jat léegi tey ma sum ni ko kat bo paree nga wax fa nga jëm waaru naa ci réew mi la tey daj gi tàkk daa jara fay waxal li fi xay loo xibaar mu mel ni ki lem waaru ci réew mi la tey daj gi tàkk waxal li fi mu mel ni ki lem bismillah billahi min sheytaan siñ daam waaye nag mu mel ne damaa waxoon ne man fotoy sama métier maçon gi tam naa ci yëngu waaye nag fu ma fekkee ndabal way man ci sukku tey nag sant laa jógee ba wax ko suñ daam mu ne man na nga ko boole way yi moo tax ma ne sant laa jógee nii ne maçon di tabax jakarta bale nee moo di man bi ma war sëriñ daam jaane woo tele faw ma ñëw yëngal fii ba mu yëngu te tas ko tasar asalaamualeykum ci lay jëkke man nuyu naa ñi fi teew ne man ak yéen far chers messieurs et mesdames l'enseignant et l'élève notre cher invité je nuyu naa waxambaane yi ak njegemaar nuyu naa waxambaane yi ak njegemaar nuyu jeet demi pas nuyu meer fallu moy sama tour sante kan ci lu wer photo moy sama métier na ko wagar talifit dama ko bëgg man ko bu wer fu ma toogee di way ko fa wo musawar janguma awayin luma way dana jub ku ko peese du damu araf du ca far fu ne xalim araf yépp taxaw na ma bind ma yow mo waral ma sawar si musa Kadi sa kay bi ma am bahru yéen muqtadaf modi man di ma far Abdullah Ndong itam du ma fàtte turam moo ma teete ci way yàlla mucc ci lor xale laa waaye nag du ma célibataire samp naa kër itam yore benn jabar ku ma sóoru ci way man ma jàggi ko tër ko farak fàllu kan ma ne doo ma sa mer yëkk day ñi njam ñi njam mën a jam man dama ñi njam mën a jam te sa war waaru naa ci réew mi la daay ji tàkk daa jara fay xoddi leen balaa juru ay tàkk-tàkk jéem a ëlëm waaru naa ci réew mi la tey daa ji tàkk daa jara fay xoddi leen balaa juru ay tàkk-tàkk jéem a ëlëm réew mi wopp siima fi daj làmb naa ko néexu la faj boppi gaa yi njur du ko toj am ñu réere am ci ñu xam maa ngi léebu gaa yi fi seeni bët te teg ko tugal tukki dong laa ne jërul jaar ci géej ba dee di ca am réew mi lan la def ñi mu am tax ba ndaw ñi dëkk ci dem tontu leen ma yéen ñi ko xam waaju sonn am lu mu ñam tukki dong daa mën a jur cin di tàkk yow ci sa kër te nga doylu yam ci sa cër ñee sa ndaw la jur ci sa ndam moodu moodu bii ci sa wet am kër ak otoom bu rafet loolu yow nga teg ci sa bët dem ci gaal yi loolu du jom am na ci moroom yi fi ne tukkiwul te yor dama ne yeewu leen ne mag du gone yàlla lu mu dana am Barcelone ji buñ ci waxoon ndaw ñi jiyeete loolu gënul géej gi ñaata ndaw la la bal junni mat na ci limilim ñee ci ndox mi ñoom lanu des am ñu yàqu ci tefes déegu ñaaw gi ngeen di ko gis lépp ngir nga bëgg dërëm am ñu jël désert bi di dox dem ba manqué ñam aku ndox daldi di faatu man ma ne ndax dem Europe dafay tax am am na gaa yi def ca Europe ati at amul njëgu sëb réccu xëy na am ñoo ma koo ci gis defar ko yërëm fii la am ku bàyyi jabar te ci doom ju matti dem ci gaal gi faatu ca far nday jawaaru ndoom sa jirim daana xëy ci marché di dox moo ne daana for lu mu jox soxna soosa wut lu nu seex wàcc daal di ñibbi këram loola noona moom da ko xeeb foog ne dem dafay tax buub lu ne gàññi lii mu fi xeeb far ko ñàkk ñàkku itam gaal di bën bënam bi mu yor buñ ko sakkulee dana xar ñépp la te kon du ko jar nan ci far lu jub ci mbiram wallu leen ñu nekk li fexe leen ba ñépp ñibbi fàtt bunt bii nu ubbi ndaw lu nekk dellu këram jàpp nit di jënd ak yeew loxoom ba duñ mën a raay dóor di dóor di métti na waay nan taxaw te jëf ci yërëm jàpp nit di jënd ak jaay yeew loxoom ba duñ mën a raay dóor di dóor di métti na waay nan taxaw te jëf ci mbiram bu mu jàmmee dagg na kat faste waat ko fàddu na it fulla fayda dafa jot africain fas fi jom CEDEAO ñoom anañu Union africaine anañu naar tubaab yi benn lañu ñun lu tee ñu ànd te dem Afrique ak Europe gi tey léegi fépp yam na la doy loo fi jàpp deel gën a mooy ngir sa réew mi jëm ca kanam boo limoon ñi ëpp alal fii wutee ji woon ko tugal waa ji kon bu leen buur bi lan war gëm tere të nga bàyyi mu gis yow alal jërul di laxas réew mu ñàkki ndaw dana tas buñ di jaay bakkan yi nu am lii pexem tubaab yi la ndax bëgg daane Afrique a tax buñ di nangu kenn di ñu nax naanu kaay te toog ca këram lii nga xam ne boo ci jotee moom du sax ci yow mënutee yow nga ni ko saa yu jotee foog mu ñëw ba dugg këram gaalu Barcelone li mu duy yóbbu Barsaxoon dafa doy kon ma tëj fi saa way

sa rongoñ yi méttit yay faral daal di lii du nax bu ñuy woy nga ree léeg-léeg bu ñuy way nga soonu jooy déggu dëgg leen sekkee di leen jam ci daggi rax loolu mooy taarif fànn bu nekk ca la ñuy waxee macha allah sëriñ Fallou Kane rafet na lool jërëjëf ñu woo ko ci topp muy sëriñ al amin Baara Diop forom guy mbind moo daan sëñ Baara bismillah ma wax la tuuti nga xam li tax mu fi file ngir mbindaanu kon di nga xam soxna si yow degluma ma wax la tuuti nga xam li tax mu fi file ngir mbindaanu kon di nga xam mbindaan du jaam bàyyi lamin lo gis ba bind ci way fi ta gara ñu ndax sun xol yi ko bismillah Assalamu alaykum ci lay nuyoog yéen ñi teew fii ku nekk ak turam ci wax lii turam al amin baara Diop forom guy mbind ak yéen ba xol set di dina dinaa di soññee ka nelaw di way it ci mbooleem lu lislaam gërëm dinaa tagg sëñ bamba ak waa këram di xas it ñi bañ bamba gàntuy mbiram da man di dégloo samay son ci whatsapp ak facebook ak fee di youtube itam li ngay bind mooy al amin baara teg teef teg ko bu fekkee itam ci whatsapp bi ngay seet samay son demal ca biir mul taxaa kër ga boot waa xalim 76 defal 8 defaat 8 defaat beneen 8 64 wa 44 ñu dem ca PV ma jël jox la son yi nga ñam ku ñam xam ne caafkat lim muy saf du lem bisimilah soxna si yow déglul ma wax la tuuti nga xam li tax mu ñëw fi le ngir mbindaanu kon da xam soxna si yow déglul ma wax la tuuti nga xam li tax mu ñëw fi le ngir mbindaanu kon danga xam daa ñëw fi ngir sàkku am lum yóbbu jox ko ndeyam asgor la daa bari jom def ko yow ne sa doom daa bu baax ki mu doon bëggul wëreelu di ñaan mbaa sax di ndebaraan asgor daa bari jom war nga jox ko cëram ci kër gi def ko ni doom bum xiif te bum maritam bul yóbbu fit wiitam bu laxas dajale bagaas yi jël tegale di yoon nga yàq deram mooy fóot di paase di root di jël sa doom yi di boot muy fóot di paase di jël sa doom yi di boot di jéem yar sa njaboot del gaaw ci jox ak fayam sàccul fenul te deful lu bon lu ñaaw te mësul du def lu xel nanguwul as la daa bari jom booy tëdd yow di nelaw ba jant fenk te yow jógoo de mooy kilo aw ci kër gi fay ko borom mooy ndugg mooy dugg waañ mooy togg jox la nga añ lu tax nga ber ko di bañ muy supp def na sa doom léeg-léeg mu tudd sa doom ji bëgg ko sàkku ne moom daa foog ne jaam la ci moom mbindaan du mbaam te du jaam du jaam du jaam te du mbaam asgor la daa bëri jom ba def liggéey ci xelam nagaaw ci jot ak fayam bul jum ba gëdd ko bul ku sëf lu mbaam attanul ndem juum na yedd ko bul ko yuuxu mukk itam min daan di tontu na sax boppam ne baat ba di cax miin daani doole di wax ji baat bi lëm na nga xam yow it min daan li la war si luy sa teg ca sawar jàmbaare dolli ca bar ci lépp luy ndigalam lu mu wax nga def ko te yow lu mu bañ nga bàyyi ko yow bul diglu kenn te yow fexeel ba am fi ndam ndem juum nga baalu ko yow njuum te du gàcce te yow nekkal ku ñëpp di naw ci kër gi kon danga am sa njiit la jox ko cëram te sax ci jëf ndigalam bul def ko mukk moroom yamal fa ngay war a yam bul dugg it ci sa yëm bul charme it jëkkëram mindaan nga yow na nga am fulla te doy bul dugg yow ci sa yëm bul charme it nga yow na nga am fulla te doy itam buy fóot na set wecc ndax day tax nga mucc ci wax te sob ba mel ne jinax day tax te sob ba mel ne jinax bul def ko mukk itam foo tollu del wane yar ci kër ga bul fad mer ndem def na sax lu ko jar muñul te wax ko mu xam liggéey bi yomb amul te bii nga taamu bonul jàmbar nga kenn sikul nes gor nga yaa bari jom lii mooy sa dénk bi yow jël ko te xam ne ki yow fekk mi ngi sa xel mi yow faaw nga am fi kon dellu naa ba beneen ma del si indi yeneen dénkaane jox ka ñeneen fii jàmm yàlla na fi am saw tudd siiw na ci al aminu FGM guy mbind mooy quartier bi dàq itam jërëjëf sëriñ Tuuba jàmm al wax jeeka dëggu te wér min daani doole ku foogle moo xelal ma acam jazaaka yaa xillu rabbun naasi kullihim xayral jazaa ci barkeb bamba may sunu ndam sa woy wi neex na te lem nay xigma ñoŋ na rafet suñ daam ki ciy topp ndeem woykat la wax nu turam ibnul xamis ñan mahmudan ñan ibnul xamis borom xalima wurus sant nañ yàlla bu wér ndax moo ñu jiital ci suñuy gox jox ñu xam-xam jox ñu am xel jox ñu làmmiñ bu saxoo wax bismillah sëñ mahmadan ñan aja tiireel bal bi ngay sox noo ngi lay teew lu du wér ngir dégg xutba bi nga ñuy jox sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ma waa faat tey ci géexut woy bi xiiru fu njaay yëmmee tillëng mbaam àll yooru dama feeñoon tabee yoon mbër ma yooru damay yas tay ni naag ak naar amul sayloo amul jóg fàllu ku sóoru bu daam yéexee ma far mu cooti yuuru bismillahi rahmaani rahim sant nan yàlla bu wér ndax moo ñu jiital ci sunuy gox jox ñu xam-xam jox ñu am xel jox ñu làmmiñ wu saxoo wax sant nan yàlla bu wér ndax bu ñu jiital ci sunuy gox jox ñu xam-xam jox ñu am xel jox ñu làmmiñ wu saxoo wax war na kon tey xutba bii may jox ñi may dégg lu warul nëf sàmm ci teggini xam ak teggini wax ba du jur fox ndax imaamun war na làmboo teggi nag xam-xam bu wér ndax ñi mu koy jox bu ca manqué ñu ne mii soow àndul ak dax nañu def teg ku déglu ndax imaam yëg na ci min bar dana waxtaane fi xam-xam ak i teggin fi ci biir gox bismillah kon bile mbooloo ubbi leen xel yi te ub xel sunu yónneen ne ñu xam-xam te di waajib ci jullit ndax moo di làmpam këru lëndëm di ko niital ba mu raw it jile duniyaa ak i kàmbam ku ca jàngul dëkke wiccax xam du luy neen xama gën réer ku xamul tàbbi ci aw xur bu gisul leer gu ko wan yoon rëccu day weesu du ay cax li la seex Bamba waxoon leen ku ragal gàcc ci duniya na nga jiital sakku xam-xam léppi duniya moo la koy jox sal fi ci duniya xabra oxra ñi fi baax xam lañu àndal ku xamut daanu ci am mooy doxal réew di ñaŋalu koom mooy di ndig réer su xatum xel di bijib yool di matal nit di jariñ ñépp ne am ndox xam bu doon xaalisu ngir for te gi nay or di urus yéen xam-xamay jëm mu mu doon ruu bu ca yuqee niw dafay tëx te gi nay taaru borom xam bu ca nee nee ñu ne lum xam ku ko sàlloo ñu ne daa xam donte ak lif mënu koo wax sunu maam mbay nee na xam-xam sunu maam mbay li la daa wax dañu naw nit ngiru teggin di ko jox cër di ko màggal ba mu far mel ni ko xon sax Seexuna Bàmba ci bindum ne ñu askan lu mu bon bon tegi nay sériya da ko yiir ña ko làqay ñëpp tëx yax tegi na yiir jahilub ngoon ba ñu far jàppe ko ab seex du ñu koy fuñ du ñu koy bañ tegi nay tee nit ki duy lax borom xam-xam bu ko ñàkkee di nduróog kaani ci am soow ku ko log yàpp bi ne daa weex ba mu far jëpp ko jug fëx ku ko xamul nag bu ko manqué di nduróog nit te di ab dof ba te sax lem ju ñu pookar ku ko mos yàpp ne daa weex xam-xamay tax nit a not nit xam-xamay tax nit jëriñ nit am na zahir am na baatin tey zahirun nëx baatinun mooy bu sëriñ sam zahirun mooy bu si noor ñoom ku ne yaay xool ba nga def koom tànn leen dëgg ji mooy sax xam-xamay tax xam li ngay wax tegi nay tax boo ko dee wax ña nga koy wax du ñu yokkat duñ la sàññee kasaxoo ñax téléphone yeeg yi ci biiram am na facebook magi whatsapp am na luñ naw am na luñ sib nit ku jàngul moo di sag nañu jóg fëx wuti xam-xam dal di dëngëñ réewi teggin bañ a tayyal bañ a yokkat jar na fan ndaa ñu ba kaw la ab yirim dëgg du faat bay ñàkk xam-xam ak i teggin mukk moroom nu sant ko danoo defar defal ndolol jomboon ci noonu leen séentu ko mboolem murit jóg leen ñu jaay jëfal ko ndax di jar na ko daa jëf borom bi fay ko lam jëf rekk far fuulal ko ko ba tax mu naa képp ku gëm ko waaye na jóg santale ko sant danoo war donte sax moom diglewul nu sant ko bu dikk far doonaat ndigal ci nun bu nuy sàggane ko sant bu wér sayxul xadim ci bàyyi lam teree ka jëf lam nu digal santaat ko kuy gor def ko njëkkit laaj na ko amul moroom mukk te dootu am ko yàlla def na ko ba Afrique ak sow ki féppen ko foofi dugg ñàkk ko kon nak yamal noppalu tok mo gën nga koy sakkan morom ndax biru ndar ñun ñepp xam la xew fa bay toba bi yi nañ bari fexeek seen firé jël nañ samp ko fexeel ko jël yóbbu fu nek nam fexeel ko jël yóbbu fu nek nam ma bom ko sanki ko taxul ñu man lenn ci mom ba am defet ci ko cheikh ban ba not leen war na leen dëddul morom ñu bayyi ko jëm nañ ba sonn tayyi bàyyi lott to lañ ci am cheikh ban bu mbër nga daan nga am bu nam ya yo ko xamuñ ni mos ahlu badar nga àndaloon ñu dar la ëw la foofi jam du yëg yaa ko liggéey fayyu ko ak sun yeneen banaa la im si naa la laa tax sotor boobee nga xam ni rek dangay liggéey yi del si def nga ko kii fa mu aw ku aw fa mbokkam yaa di tey bis ñàkk ko nde dootu nde dootu si mukk jébbalul ci sëñ bi bëgg ko mooy wéerukaay bu mat na sëkk wéeru wéerul ci moom ku wéeru doo daan wan ko àddina dëgg malaat ko waaye moom mu bañ ko dëdd yitteem di yeesalaat sunna si yonente yàlla ñor ko lool boole ca pas-pas ak dogoog yit boole ca pas-pas ak dogoog yitte ju mat di gunge ko ndaxte mujaddid la bu yeesal diine ji te ñag na ko bam aaru muy ko mat sell yaatu xol la def na ko di tagg daw man jëwrinam yonen ba daa julli ci moom seddali ko ci at mi def ko ñaari xaj bind na ko lampeg ci xam-xam am ci lool lu téere ngay ubbi ca ko waaye lu yàlla def loxol bu leeru tuddi dékku ko waral mu deg waral mu deg alquran te deg sunna yit bu wer mboolem masadir yiñ di jukke àtte yit deg na ko daa ya ka ya ka taxdiyaa ka tahliya ñam noppi rek ci ñoom gën ñiñ ñiñ fi di tuddi tuddu ko ak fit wanam tollu dama gisul moroomam ak ragal yalla la def ko kep yay tax yay lore lañ di tegg ko fa suma taqaf ilaa hakal ahad dilam waxon ta lolu don doon lu feeñ bi niroog yonen bi aw jëfin roy ko ci lépp day mbiram yonet niroog yonen ba aw jëfin ko ci lépp di mbiram doxam ba gaaw fa mu toll ànd ak kaamilam ba gàddu ko yow tee nga yem fi say xunaa ndekii du jeex ndekii du jeex loo wax ci moom desal lu ëpp la nga wax xanaa damay ko sopp ko na yàlla fay ko boole noog moom it ëllëg nu teg ko bët gunge ko jëm Firdawsa yàlla mën nga lii defal nu ko mbatal mébét ba lépp sotti ci anam gu jag wax wa ala zalika rabbuna xadirun mën na salla ala xayril xabibi sarmadan wa sallima wala ali wala ashaabi man faaxoo borom bi def na ko wa kulli man asaaruhum xad ixtafa ilal abad wa xaadimi rasuli sayxuna la si gërëm na salli ala muhammadin wa ala alihi wa sallim sëriñ la wuute nag sëriñ si moo di seen sëriñ ñu seexu naa bàkk nga ko moo di danay rasoolu mooy sun ndam di sun mbégte te mooy kuutaatu Moustapha te mooy sun waayi nabuur fayal nu ko siñ jaane dam liste bile yéeraat ko xool kiilaam kële kum ci nga woo mu ñëw file ngir ab woyam mu indi ko ma tee ma faf sant yàlla mi ma def aji gëm matal saay cër ñongal saam xel tax ma dëkk ci xalam ma tee ma faf sant yàlla mi ma def aji gëm matal samay cër ñongal saam ma dëkk ci xalam kon sant koy li la war ndax am na gaa yu mu xañ an xel taxañ leen gët seen yenn cër ya nagam misatul amali لو عبد الله مين يو نيني بتيو نخرب بسم الله لينا في تيو دلا جوخ واتي واي بتي يو دل سوات في لا جوخ لا سجر نانو ما ستي تيو لو بيتي لي نيو نانو فول لي جي مين فال خل اك نوب غير كي واخ لي واخ ني جلي كام سونو خول دك لوخ تدي خل Kumalaj laaj sama turu abdullah ku laaj sama santu de loola di sant wu biir yori ndaw tadi def alquran ci ñom modi sammi ci man suba ba fajar ku ko mana gindi wu nit ku ko ku gindi kenn ku gumbay gindi do xawé ngir xamal te ragne xam ak ragne la dee fi jubok aw nit ku wu la ku yaq ñoy mi bir ngir bañ reeral ki deglu xasida gi ñu jàllal dafa jëmoon ci waaye dese yi lu mel ne dof yeeg ci aju ci biir yëpp taxawaay bi war ci ñoom dañu gis ne nit ñi deful ko te loolu njiit réew mi ni mu ci amee wàll sasum war a bay noonu la ci wajur amee sasum war a bay ndax koo gis ko ne ci ñooñu ci kër la génne moo tax ma ne woon moo tee ma faf sant yàlla mii ma def aji gëm matal samay cër ñoŋal sam xel ma dëkke xalam kon sant koo war ma ñaata nit la dee fi tassé lu ñu manqué ay cër té sax man na di ko ma sa xam ngir bis de la tiggi saw jeeñ génn wut duwa war ko dàq muy can ma jëm ci daal di jëm di lu jum bay doora yegg bay doora yegg la say gët gis nga gis bu ñoral am ngor su gor ci kéram melo ba daw na yaram dojor ya xar lekh ya lakh gëtam ya las ka naajaan te suuf sa nga tay noppam muy xam ya tilim am gom ci wom ya te rafle gaa ko wër mu tilim lool te jam jam ya ñoo ngi koy jam yaram wa didim nees tuut mu fab fudd jóg wenjaan ko dar tema ngay waxtoo ko sànni yoxoom lu mu romb def ci potom suy taw ñu daw jëm ci néeg ya moom mu des ca jaba di xuus ca taataaya déeg ya lay fajee ji maram du seex lu wet du tiit lu nëb ñu sànni mu jël lumpee ko noonee du gëj sën ya moo di lëlëm naka la siggi ma gis kanam ga muy kuma xam naka la siggi ma gis kanam ga muy kuma ma xam xamum njabootam samay rongoñ di yon ma mu mutin xalat jekk muy ñakum xelam dafa daan dog wu mi gatte ya samon lol waré fi këram ñakum xelam tax ñu jël ko ko di mi kenn amul ci mom soxla do gis kenn sayatu mbiram naqaru dis ci sama xol tax ma gaaw ak deug ci dal ne way jur yep te ñu wedam sa doom dese tax nga jël ko génne yow ci sa kër muy dox ci gox yee ka fan daañoo ko jëf lu xajam jur yi amuñ xeel te yow dëkkoo nga leen ci sa kër ki ñàkkum xelam tey nit di mbokk yi tam jur yi amuñ xeel te yow dëkkoo nga leen ci sa kër mbërgal ki ñàkkum xelam tey nit di mbokk yi tam kameñ ñax ci am pax tax mu seex di warax ji jëm ma sopp ko ba tax mu teg ko ab dogalam ñu tus lu ca des nit ñi matu matu ñoo xeeb naa ñi jëm kiñ fal ci réew mi na ful la leen def la ko war ci ñoom te bañ leen a seetaan jox ku nekk ci rëm réew moo fi dem ña dese dees leen a def ci bërëb di yar di yor seeni mbir tey toppatoo ko yërëm te am ci réew yooyu du ñuy jullit te nun ñu ne yeey gëm nañ te ceerub la ñuy def kat deful ko ndaxam yow mii nu fal defaral fu taaru yaatu dëxal fa ñiig ñu leen yor nga yor leen njiit lii di ngërëm defal nu faj nu defal moo taxoon nu faral lafal la xaajo yi askan yu moo di sa ndam defal nu faj nu defal moo taxoon nu faral lafal la xaajo yooyu askan yu moo di sa ndam buur jox na la xel xañ leeni xel na nga jël sam xel saxal ko ci ñoom muy sant buur bi nu gëm lañ ñàkk nekkal ci ñoom loolee ni ñàkk nañu ak toppatoo toppatoo leen réew mi jëm sa kanam ab xiif bu tar aku mar tawaat yu tar mi ngi jël wakkañ waay desi yi wallahi daw na yaram jóg jot na jëf bàyyi wax dañ ci ngëlëm di xalam xam xel xàmmee di roy ñawoon balaa xi ngërëm bul ci te ruujoo mayul di xam bu taalu keneen taalal te yànjal jëriñ nit ba déefu la jam bul ci ruujoo mayul di xam bu taalu keneen taalal ke yaanjal jëriñ saw nit ba dee fole jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah hasa zamanu zamanu wor na kuy sàmm ngor tey ñu naa mu waay ma kii lu ko jot hasa zamanu zamanu mbum mu jekk la tax ku sañse foo dem ñu lay xàllal di fonk la kat hasa zamanu zamanu roy la ak fetale tax bis bu nekk nga gis kuñ roy manul lu nu jot hasa zamanu farantoog njaalo mooy li fi xew ku seerewul nit ñi teg koog dof te fekk du fut hasa zamanu zamanu fant naa ki paccal kuy wardu bam der ñu naa kii kon la dof la du nit hasa zamanu ku cag daawul la ak soli peew kuy xotti caaya di sol xaptaan ñu naa xonetut hasa zamanu bu cag daawul la ak soli peew zamanu zamanu Viber activité hasa zamanu zamanu Viber yaa ngi facebook gaa yi nun lu nu jot hasa zamanu zamanu Viber activitaire er, ku whatsappul yaa ngi facebook gaa yi nun lu nu jot hasa zamanu zamanu am ku ñàkk bokkoo ne dañu lay ber lay seex loo ka laaj lu la jot hasa zamanu zamanu bu rëy di fuuy ku yel ya yuqeektu baayam dootu yónni ko kat hada zamanu zamanu réer la ndaw lu fi xëy ñu jox ko mbaam muy dawal yéen waaru kay dafa jot hada zamanu zamanu lay sa dee fi ko dab ci mbon akuk yàqu loo daw daw lu tax nga muccit hada zamanu zamanu ay nitam wéruñu laakin na coow li le mooy ban jàngoroy bi nu jot ji xikam na yàlla fay la te may la soxna yow su rafet su njëkk daam jaane wool kii topp ay canu dem jërëjëf sëriñ Abdul Ahad waaye jërëjëf sëriñ Xaadim Fall ci hasa zaman boobu wax dëgg yàlla war nañoo laaj lu ñu jot ñu jox sëriñ Mouhamad Lo moom itam mu woyal liggéey bi ndax ci commission bi la bokk bisimilah sëriñ Mouhamad mu ne sonn naa tàyyi naa ci tontu ko may xas lu ma waay man di wax dinaa ko ko jéggal bu ma dee dox ba gis fi mbir mu ma tiital dama naan tekk tey ba xam lu ko yëngal li la tax ma bàyyi jàkka mu leeral li mu xam tax ku tooñ ko moom du la lottal li la tax ma bàyyi jàkka mu leeral li mu xam tax ku tooñ ko moom du la lottal jàmmi yàlla buur yàlla na wàccandoo ci yéen ñi teew file aca lam bi way ma fi sàjji tey mbër yépp ñoo ngi le ki ko dëkk jéem ki ko man ba toog duñ bokk ay kale ku fi xiifi way na nga indi bool gaañaa ngi yàq kale baxru xalil yàgg yi bees lan soot ci cin yile sama waa ji yow ak silka toog ubbil sa xel mi le di dégg tey lu la yéem ci way dinañ la jommali fu nu mas a jaar def nan ko doom tey rek ñu toj file bu nu delluwee ngeen indi ay ciment ki fer yile li fi mbëri buux yàgg koo dëtam ci du si way yile bu nu buuru soo fépp tooy na xit bul tarde géew bile aca bàkk leen aca bàkk leen galan bu nekk ndëndëm yële mbër ma gis fu nu jiine mbër bégal mag xale bu ko defee way wi maa ngi ko woon sonn naa tàyyi naa ci tontu ku may xas waaye balaa loola rek ma barkeeloo tuuti rek ci sama takkoo bi nga xam ne ñaan naa yàlla balaa déwén incha allah mu dikk ca kër ga ma yam ak sëñ Fallou foto ka incha allah muy njóoba ba njaay man bàyyi naa soli caaya naay jami peew ni ki kooba te leen deful lu ni mel lu mbëggeel gi dal ma ci njóoba mbëggee la tax ba ma dof tey nand te soppi ko pont ba may dem këram wala muy jox ma rendez-vous ba ca pont ba léeg-léeg ma dem fa ba guddee joteeg magam ja ay yuuba say mbokk yóbbu ma kër ñoom docteur bu mag mu xool ma daal di ne kii nii dof na bu yàgg ca booba bi la géer far na di géwél njóoba njaay soppi kub gërëm njóoba njaay naaru maa awa falu na buur ma di dagam laa li ngertuye la meilleure mon amour est celui septem celui-ci s'en sera jamais si ma rattrapé non bilem le moment c'est l'oublié tagaraay écrit poème pourquoi mes amis et mes familles s'aiment pas toi quand sonn naa tàyyi naa ci tontu ku may xas luma way man di wax dina ko ko jéggal sonu na tàyyi naa ci tontu ko may xaf luma way man di wax dina ko ko jéggal jaratul khayakh jarul khulu ak ngaayo jaral jaratul tontu mba ñu nan ma adina ngay wër li nga sol kaw ba suuf gi lan nga ci momul suma ma dee sol lu rab ba xotti ku yit gaa ne da salte mba yaram wi Soma neexul suma ma dee wax ñu nan gisal ak man wax fu mu toog wax ba wax fa luñ ko fa laajul su ma noppee ñu naan xolam bi le moo bon ba du wax waaye làmmiñam bi le dammul su ma dee dox ñu naan këram du fa toog gis da di dox rek du yendu mbaa mu fanaanal su ma toogee ñu naan du génn këram gee ku ko gis yaa fa dem melo mi la baaxul su ma dee jox mbindeef alal ñu ne day yàq alal waaye léegi léegi mu jeexal su ma dencee samay alal ñu ne daanay duñu xew ñaar alal ji kenn ci bokkul suma desol, sol wolof ñu ne daa feex magate ndaw la def teboo la ci ngistal ma xeye sol bu de ki jinn ñu ne lagu bon limusol mu sol di melne ko jangul suma de wax ci diine ak ci borom bi ñu ne xol leen ibadu ye ñi ko neexal mba di wax mbaaxu bàmba di ko kennal ñu ne bokkale yalla bur du ko jéggal suma ñu ne da bëgg lum for suma ñu wax narab ye ko dikkal ku ma wax ab bisam ma dem ñu ne aw xew la di wër waaye xew yu kenn ko wowul ku ma wax xew ma bañ ca dem ñu ne daa bon du demoo xew ne kenn kenn la fonkul sonn naa tàyyi naat ci tontu ku may xas lu ma waaye man di wax dinaa ko ko jëggal sama maam nee bu nit ñi dee war a wax da leen jiitu rek ñu bëgg la sikkal na nga jël muñ mu doon safas wuti laa laabu fulla ak fayda dikk daat ko ko ràngal ki la xëy romb bi dox nga koy xas a koy jëw mu xëyaat romb nga di wax bis mu romb laa ko Jakarta na nga waaj lee mu am otoom ne la yéegal ki di wax ak ki dëkk jëf duñu benn bu nu dee wax jëfal sa jëf jaba yeggal moo du jàkkaay ki doon la laabire wii way fi fi waay jëm jëlal nga def ko sa yóbbal su ma toogee ni tekki xel mi ne walwal ma tëjee saa gémmiñ làmmiñ wi di feeñal naqaram saa loxo di kaas li ma bindul li a tax fépp saa ma jug di fi gaaral sama way waana jot gi rekk ma yombul luma ma xat-xat ba gis si mbir mu may yëngal dama cay way te bayit la wu yeggul soppe yi sunu rew yalla bur bi doli fi xewal lu nu fi bañ mu delu dat ñuko dakal salli rabbina lan nabi wa alin te di sant ak di kañ sëriñ bi ma àndal alaykum wa rahmatullah merci jàkk jërëjëf jàkk lii ya tax ku la tooñ yow dama koy bal de gestu woo ku la soofal ne la bo dem nga ndaw su baax su la yëngal ne da ngay ab célibataire dafa neexul aka neexoon mu jàkk njaay mi la fas jom aka neexoon neexoon mu jàkk njaay mi la fas jom takki nag soxna ndaxte lii dafa jekkul aka neexoon ma dem ca penc mu réew ma nekk ab député di kaas la fa jekkul aka neexoon su njiitu réew mi la wooma ne gis ci réew mi wax ma ko gaawal aka neexoon su njiitu réew mi la wooma laaj ma ay conseil naa ko wax lu mu foogul asib la yow tee nga yokk war ci sa naaga rëpptal aw ja ma jëf li la war dem fatt say noppi xol te fatt say noppi xol te yi lu ko may daañu tardé xañ nga fi luy ndam am na ñun yokku ñu alif te yu xaasuñ taluwaay jëf ña ngay sikkal ak a wax cam góoru ñoot yàttu nu xalim te ko bind ña nga cay soppi aw xaraf ni ki xam sabarun daggunub galeen tëkku tëgg daal di tëb def yaagaar yaagaar dafa cundum jërëjëf waaye wi neex na trop àdduna moom kenn mënta mucc préfet dañuy jox sëñ Seex si la taalib gaaral ay kàddu ci kuréel gii di mu tax a soxla lan moo ko tax a jóg ak fan la bëgg a jëm ak yan yéene la am ci waar wi nga xam ne dañ ko doon ne ci ñoom sëñ Moussa xeeñ asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu sant borom bi tabaaraka wa taala eh, di julli ci yonenam bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte bu baax ak contentement ci jataay bii nii ñu nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp muy góor di jigéen ma ak ndaw di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Serigne Dame Diagne mu jot ci leen ñu ko képp koo xam ne teew na fi ak amoon yéene teew waaye di nuyu mboolem waa Moultakha Sonala ci tuuru Serigne Cheikhouna Mbacké ji di gànnaar mi xam ne moo fi kilifa gi ak mboolem waykat yi yëpp rek ak fu mën di nekk di leen siyaare ñoom ñëpp ah, di rafetlu jotaay bi bu baax a baax xam naa njëkk may leeral ci Moultakha Sonala ni muy doxe ak ku ci bëgg a bokk damay wax as tënk su néew rek ci way mooy dañoo tollu ci jamono joo xam ne li ñuy wax way war nañ koo gën a fonkaat bu baax ci nit ñi ñu fexe nu gën a eggee ci ñoom ndax ku nekk xam na ne bi jataay bi tàmbalee ak léegi jàllal na nañ fi ay xasida yu fasantikoo yoo xam ne yépp am njariñ te lépp ay tam la yoo xam ne day delluwaat ci biir société bi te lu am la lu ñuy wax actualité li ñuy dund la bu ñu joxee misaal ku mel ni suñ fàllu kan rek lu jël ci muudu muudu ku nekk xam na ne jamono ñuy gis nañ wàllu muudu muudu bi ni mel ci àdduna bi rawat na ci Afrique ñu ngi dégg lii bi wàllu esclave gi fi am ñuy jàpp nit ñi jaay loolu lu ko waral mooy bàyyi seen réew dem ci réewum jàmbur di daane doole loolu joxe na ci leçon boo xam ne bu am solo la mi ngi ko jaaree nag ci woy sëñ Mour Diakha mii mujj a wax lu am solo loo xam ne lu am la ci jamono mooy nit ki noo mën di def ñu jox la ay kàddu yoo xam ne bokkut ak la nga xam ne moom nga jublu woon kon loolu lépp ay leçon la yoo xam ne mi ngi am ci jamono ñu koy jàllalewaat ci nit ñi te kenn ki koy jàllale day toog ci néegam ci ruxam am ay xalaatam yoo xam ne da koy dikkal mu jël bigam yóotu koy bind ko ci kon loolu lu am solo la ñu jël ko nit ñi gën koo xamaat gën a xamaat lan mooy way njariñ li mu am ñu boole ko ci seen dund bu baax a baax a baax nangoo jël seen yitte def ci nangu cee sonn nangu cee def seen alal ndax way toll la foofu te incha allahu taala kuréelu mu tax a soxlaa gii nii ak ñi nga xam ne ñoom la boot loolu moo leen tax a jóg kon loolu mooy tënk bi nga xam ne dañ koy def kuréelu mu tax a soxlaa dañ koy tënk rek ndax mel na ni waxtu wi duñu may di jaar fa nga xamee ne fa la sosoo ba day nii le waaye ñu bàyyi xel na rek ci njariñal lenn ci réseaux sociaux yi ci la bokk. ndax ku nekk xam na ne mu la asooraa ñu ngi sosoo ci benn ci yooyu noonu Facebook ca la tàmbalee ñu koy doxal ci groupe yooyu yàlla dogal WhatsApp xew ñu ubbil ko fa. ñu WhatsApp xew ñu ubbil ko fa nekk ah ñuy dem ba boroomi xel yu sell nekk ci ak ay kilifa xalaat na lii kat war naa mën a nekk ab association bu am ay objectif maanaam ay bëgg-bëgg yoo xam ne ci la war a war na caa egg ñu ne nañ ko defal benn association association bi nag ngir nit ki mën cee bokk. faaw day dagg li ñuy wax ab carte boo xam ne moo ko ci mën a boole mu bokk ci. carte membre boobu muy dagg du ca yem rek waaye weer wu am na lu muy warul loo xam ne da koy joxe chaque fin de mois ñu dugg dugal ci gafaka mu taxaw soora ndax bu ñu waxee association rek népp ne dañ cey jël alal di ca def mu nekk di toog na nemm waaye dafa am ay ay anchita ak ay harakaat wala ay yëngu yoo xam ne association bi mi ngi koy dox muy lu mel ni yii nii da ciy taxaw ay umsiya te buñ ko dee def am na ay financement yu ci war di juddoo te loolu yi buñ koy def du jóge ci gafet ak kenn du gafet ak mu tax a soora kon loolu mooy waral cotisation yi ak carte yi am na lu ñuy wax it xalima wurus moom ab joŋante la boo xam ne mu tax a soora da koo taxawal di ci tànn ay ndaw yu nekk ci biir dëkk bi yoo xam ne ñu jàmbaara lañ ñu mën a woy la ñu am xel yu sell te seen di xel di naaj ci loo xam ne dooy am njariñ la ñu ne fay dajale di leen tàggat tàggat googu ñu leen tàggat ku nekk di rawante ak sa morom baa boog luy nuru ak rawante ndax lu baax la ñu ciy tàggat nit ñi rek waaye luy nuru rawante ndax nit ñi moom dafa dem ba jamono toll koo xam ne ñaare boo bëggee ñu gën a sawar ci dara da koy def lu mel ni ak ak ak njëkkante rek ñu def nañ ko daaw defal ko ren ñi ci bokk ñëpp di ay waykat di jàmbaar kenn ku ci nekk mu ñu demee ba ci paandaw ga daa am lu ñuy warloo ak yow te njëkk loolu it am na ay jataay yoo xam ne dañ koy def ñu koy wax ay match de poule ay qualification ak yu mel noonu am na lu cay war lu cay war a dem loo xam ne ci gafaka moo tax Soxora da jógee kon loolu moo ko mooy tax ñuy laaj cotisation mensuelle kon loolu dañ ciy gën a soññaan ñëpp bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ngi dégg turu moo tax Soxora ak fu ñu mën di nekk ci dëkk bi ak ci biir ci dëkk bi ñoo xam ne moo tax Soxora kuréel la goo xam ne liy bëgg-bëggam mooy boole waykat yépp ñu doon benn bu leen boolee ba pare suñu làkk bi nga xam ne moom la ñu moom te moom la ñu yàlla jagleel te amul weneen làkk wu ko gën ci ñun te moom lañu ñu ñu gën koo waggat gën koo fonk ndax suñu maam ya suñu Moussa Ka ñoom ak bay Mbay Jaxate suñu mm, Samba Diarra Mbaye ñun ñëpp dañ cee ñëw def ci loo xam ne lu yéeme la kon waruñoo lem rek loolu mel ne dafa naax saay kon loolee ngir dajalawaat ko ngir dundalaat ko kuréelu moo tax suxaraa jug nag taxaw ci ne day waggar wolof gën a tàggataat ndaw ñi ñuy nammaat seen xel di ko gën a dundal di génne loo xam ne lu am njariñ la di jóge ci ñoom di delluwaat ndax ku nekk xam na ne benn waykat mën naa defar junniy nit ndax moom muy wax li muy wax jàpp naa ne bu paree dina ko jomba def bu fekkee day aaye li muy aay bu paree moom dina ko jomba def kon moom mel na ne daa baax wala am na lu ci moom mu koo génne loolu ko génnee loolu te benn nit moo ci jariñ ndax ku nekk xam na ne réseaux sociaux yi léegi ni saaroo nga jël sa benn audio 3 minutes nga dugal ko ci whatsapp benn groupe groupe booba kenn jël ko fa dugal ko ci beneen groupe muy dem di tasaaroo lu mat ay junni nit danañ ko dégg te kenn ku nekk dana ci dégg loo xam ne koy jariñ la mu jël ko kon loolu it ci lépp ci wolof la wakaraar wolof lay doylu ak dundalaat way ngir mu gën a duggaat ci nit ñu gën koo jàpp gën koo xam bu baax a baax a baax bi ci topp it mooy ni ma ko waxee muy dundal làkk bi gën a nàmm gone yi mooy ak mu ndax a sonra di dox ci li ñuy wax euh, boole waykat yi bo di leen boole ñu nekk benn ndax xam nañ ne Touba rek nekku na waykat yi fi la jam waaye am na yeneen waykat yoo xam ne nekk nañ ci bitti dëkk bi tey ñooñu yàlla mën naa dogal ñoom ñëpp ak bëgg moo tax ñu bëgg ak bëgg moo tax ñu bokk ci ñooñu dañ leen di boole ndax way moo tax Soxna day def ay jataay yoo xam ne da koy décentraliser di ko génne bitti réew mi yeneen dëkk yoo xam ne ci sous-région bi la nekk ñu fay dem dafa def ay jataay yu mel nii léeg ngir ngi wi soxla ñu ñu dem fa kon loolu lépp buñ ko boolee daal. moo tax soxlaa association boo xam day yëngu ci wàllum way ngir dundalaat wolof ak la fi ma tàng na seddul Modou Diagne yaa sa waa ji Cheikh seen liggéey yëngul to jërëjëf yéen Adja Mariama soxna Ada ma Diagne Diagne bi yëngul mhm. bëgg naa nag jaañeen yéen bala dem ñu sa mil may mbokk ak tubay yi yéen a waaw waakal jërëjëf suñu Xaadim Fall bu defee ñu woo turandoo muy Xaadim Fall Baye Fall moom itam bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon def concours taalif boobu moom sëñ Xaadim Fall nii comme ni ko sëñ Cheikh la taalif leeralee ñu bokk ci activité yi nga xam ne mu tax a Soxna da koy taxawal suñu xaalis bis ci fajar yore woon bagage yore woon yu dama yokk bis ci fajar di tukki jëmoon tugal yore woon bagage yu xawoon na takk waroon tugal ana mujjee baye faal bi waay nga la gaawenu bi la tukki neex naam neexu doon lu ca am waxal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jégul baax nag ci yéex ñoo ngi dañoo ay ngant rek ñoo ngi baax baax bismillah dama yokk bis ci fajar di tukki jamoon tugal yore woon bagage yu xawoon a takk waroon tugal dama yokk bis ci fajar di tukki jamoon tugal yore woon bagaas yu xawoon a takk waroon tugal ku dafa njëdeer te mu gaaw du bañ ku ko war mu daw ma woon ca nongu di dàq ngir bañ a guddi àll ba ni waxtu asri ñu julli dajeeg ma dugg bani wax su asri jotee ñu julli dajeeg mata bi ci ben dëkk jawal ci penc ma di dal bama ma yegg fekk fa ay eh, jotaay yi eh, fasantikoo ma ni yo ñu fay ma xagn ma ñi ya dee na demal ba ca ñom ma yegg ni yo ñu fay ma teral ma yit sama xol bi seet dama denk leen fa waraat dañal dama def ko way yu rafet ba dama ak wurus fi mu tàmbalee mi ngi ni ñu tewlu ko xel mutafaahilun mutafaahilun mutafaahilun mani déglu leen ma ma wax fi njiit na mu war di mel ku fi jiite réew wala dëkk mbaati la gox-goxaan na nga déglu Bamba mu laaya biir la ca dandu sil na nga doon ku maanu daylu yaatu saxoo di muñ bañ a gaaw mer bañ a jàpp mer sa kanam ubbilu tooñ nga baal ko te bul di tooñ ña nga jiite bul doxe maa di njiit di ki sañ di noggatu tey mbugal bu la yàlla buur bi na tooga tooñ na nga baalu leen bañ ku tooñ war a baalu ak nu mu mën di toll na nga boole ñëpp te uuf xarit yamaleel itam ku am ak ku ñàkk te seeni xàq na ngay matal ku ca jàdd yoon na nga teg ko daanee te war amul sama waay la mbaa sama mbokka mbaa dafa am alal bu ca xeeb xelal wala mag ku wax na nga déglu ko bu ci xeeb xalaat te ku man di wax mani càmbaral te bu ñaar jotee ba nga leen di àtte awal ci yoon beneen di yow na nga seeti yàlla te koy ragal ko la balit na nga gëstu ba mu wér wér nga door di ca jublu mbaa lu ko may nga def ca lu nuy sikkal ko la balit na nga gëstu ba wér nga door di ca jublu mbaa lu ko may nga def ca lu nuy sikkal li ñu jël la teg la ci seen kanam bu mu tax nga foog ni nga way ki gan da di njiit du ñàkk ci mbir xamal ni ñu ànde wóolu la jël la teg la ci seen kanam na nga sàmm mooy wor du war yu ni ñu ànde la jël la teg la ci seen kanam na nga sàmm ko mooy wor ne du war yu dëxal te ku ñëw ci yow di la jay xamal ni alal la bëgg ci yow du yu ko won ginnaaw lu mu wax waccal na nga def njacaar mën a gis bu baax fi nga war di jaar ku gisul xamul ñu mu jiite am nañu aw gangal na nga xam bu baax la nga jiite jàng ko fekk ko lool ngala loo xamul ku la jiite yow ma ñam xam bu baax la nga jiite jàng ko ko lool ngala loo xamul ku la jiite lool ak na nga xam ne waa ji la bëgg dëkk xelal la ak këlatim di jay bëgg a jàdd loola te lay dugal bañ topp waa ji la bëgg ak ki la rus ba tax lu la neex ñu ànd te loo defit ñu ni liy sikkul ak itam ki bañ la boloo fi def mu saboote ko ki xoolam rafet ba du ñaaw lu tus bu ko bàyyi xel ki nga xam ne boo ko waxee sa biir bu ca ànde wax ni rafet lu naa ko tandem rafet du ko xamal la ne lii gënul ci sama xalaat xalamal la ne ki ne mooy ki njiit yi jubal di war ku ko am moyal lewetal te tànk ci wet ba kenn du jalgati du ñu lay ragal dañu weg la dëj ci li ngay doxal na nga jéem a roy xamaru na xam ci ansis ma way ku ñu jiiteeloo dañu sas la sas bu jafee matal na nga jéem a roy xamaru na xam ku ñu jiiteeloo Tanya sos la sos bu ñu koy mutal wasalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi jéggalu wax di leen dafa neex a neex na la laggal sama yaay sama yaay Mariam xaalis bi ñëw na ko teg ma jël. jërëjëf sëriñ Xaadim Fall xasida gi bàyyi ko delloo soppante mag ba ci ndaw bëggal te wax ko ca kaw jéemu ko ragal bu ko raas ku fi adib na nga baal kii jéema joow gi légal day jàng woy ci misaal cofeel bu bàyyi taraas bàyyi ko delloo jege si te wax mbëggeel gi la dal bàyyi ko delloo jege si te wax cofeel gi la dal riimal te ci mbëggeel ni xàmmewul fi la ab siis du ab diis ab nday du ab gos ab ceeb du ab soos maaman gaañu may ab siis du ab diis ab nday jor du soos maaman gaañu may boos ab jeeg du ab jànq luñ jëmbat luñ rànq ak gaynde du sa ak gaynde du wànq maa ngi def bomb ak bës léegi salaamaaleykum wa rahmatulah daa am nuyoo bu ma bëggoon def waaye suñu Cheikhouna Mbacké daa am lu ma wax ci ginnaaw léegi moo tax ndax nuyoo bi dafa am ma sant ñëw nee na ma da ngaa sant kon nuyoo bi xam naa dafa koy changé léegi bu ko defee du ma wax sant beneen laay wax leneen laay wax daal du ma wax sant waaw mu wax ko ñox mais dina bal maa wax ma gër gi asalaamaaleykum ci baxru ñukku lay nag yàpp jën ya di togg firil mu dàq ak tëb gaañi bis dañu maa woo ma déplacé dal dikk nan ma yow dañu lay dégg wax ñu yaay kanit rek man ma jóg naan leen nag du am belam naa ci bind ab ni yoo rek nag wax fi may kan du jër yi ndënd kodde looy sama tur moom de too i fay sama dëkk bëgg leen a waral man ma jël taxi daati dikk rekketam dañu may woowe jun waykat nga bu mag dëgg moo waral ba ñu may woowe shaa'irun te day dëgg yàlla mooy ki dogal man ma ay ci way ku may dëkk jël defet nan may maytu day rekke te day mbëkk ndaxte way dama koo jekk baxru yépp lay bind am na ay bajara am na kur kundum kundum kundum bii jataay dama koy toj mu xar ni man li may bind neex na saf na xorom yow te gin yu dàq am dënd moo waral dama naan gaa yi tey jii ma tax ci rëpp ndaxte man fu ma génn nit ñu naan Codé nooy na ñëpp moo waral ba ma naan gars tey jii ma tax di rëpp ndaxte man fu ma génn nit ñu naan Codé nooy na ñëpp sukkuraan merci suma cànk yi bu kenn fépp lii nuyoo bi la rek gaa ñu baax ñi laa fi doon di bokk. leen faxilu mbëggeel de mooy feebarub dee ndaxte waaju mu dal soriwul ak nit ko dee ndax day paralise mbëggeel gi mooy feebaru dee ndaxte waa mu dal su réewul ak nit ku dee ndax day paralysé mbëggeel dafa jàpp say cër yëpp rey ka mu dee koo man di doon bu la seet see da ngay sensé day yóbbu sam xel ba yow ngay dëkk njàqare rek ngay mujj doon nit ko dof nday sànni lee doo lekk doo naan xalaat da dëkki wax toujours je pense toi et je t'aime yi ngay lancé te moom xamul góor xamul faam mag nga mbaa nga ndaw ku nekk lay dal te comme dal faw nga déranger te it xamul buur xamul dag moom xamul sëriñ it teert bu xaj moom mii buntam dafay raase la muur xamul pël xamul naar moom xamul wolof xamul ko ko doon séeréer njaagoo ki ay soose la muur xamul pël xamul naar moom xamul wolof xamul ko fi doon séeréer njaagoo ki ay soose mbëggeel gi fi jàpp gaa yi tër de moo ma tëral moo tax ma koy wax xarit c'est par laisser passer je t'aime beaucoup je t'adore je pense tous les nuits et je ne peux pas dormir et je ne peux pas manger uhibbuki maa kuntu a'rifiki li am na xaritoo mbëggeel la guñ changé yaa yóbbu saa nelaw te sam xel du jóg ci yow di wax ko rek laaj man moo gën na fii doose sa taar ba dàq na taarut ñoom ci teeg bi fi yaan lii saa ak i kat yi sumbul ak ñu fiy doose lii laa wayoon di fi tëj bu kenn jàppe ma nag xalaat la woon rek bu ma doon bind kay lancé asalaamaaleykum wa rahmatulah. xam naa ne neex na ci man bëggeel dafay tax ba jëm muy tëb tàbb ci dansé bay ko delloo na ci man bëggeel dafay tax ba jëm muy tàbb ci dansé. sawoy bi daa rangé macha allah jërëjëf li nga wax ci sama xol boo ma tàggu woon doo ma yóbbee bi la coono ak misère bu tar bi ma man ni ngum mu ne sama xel réer ca biir ku xam li ma nekkee dox bi la ba ma jot ndaw su taaru séeg ñëw jekke dama ko rus dama ragal ne ko loof yu xaw ma raw xaanu lam jinne fu mu bokkee aka neexoon mu am basiira ba yar gis sama teenub xalaati xol ni mu sakkee laka ashqi wa mafraxi laka hubbi yaa di sa mbég su may war ak su ma tokkee laka ashqi wa mafraxi laka hubbi yaa di sa mbég su may war ak su ma tekkee sama ru jëmm jéegi yax ba ci saa yóor sawaraw sokku ke waral ñu mu lekk ñu mu lakke kon ñu wo sëriñ maxtaar sekk borom facebook dafa am bis a dugg facebook dafa am bis ma jënd paas dugg facebook ma gis sama compte danaan du ma jaaxal non daal di sabab contre ab demande bu ma jaaxal yaa xafiifan xafat bihil xarakaatu ma ni paap lii la jaaxal ñu wasi danga gaaw Thank you.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 dafa am bis ma jënd bi ko Facebook gis sama compte ab demande jahal. jaaxal dafa am bis ma jënd bi ko Facebook gis sama compte ab demande buma ma jaaxal bama xolé mu doon jigen juma jomal jommal taro dines ne sey la mandau mi la si jël ko de ma xel naa ma jël ko yow bañ a yàggal ma ne naa jël ko kon te tey bañ ëppal da ndaw sii ma gis supprimé ko wóorul dafa am bët te yéen yamat gudd ay xef la mu ree jar na ju fajar di ko maajal jar na wax ko ñëw jaane daam kee topp nang nu ko wool wala may woote منقسما من قدر بلغة على فيها ذكري والشكر له سرا وإعلانا هو الذي قد سقى من كان ومأنا أهلا هنا مستعن تظهر ما كان خفال الشيخ الخليل جهلا وإعلانا أهلا هنا مستعن تظهر ما كان قس على الشيخ قس على الشيخ الخليل جهرا وإعلانا محتصرا عن الوقوف ها هنا أمامكم في الملتقى الرباني فلتسمعوا مني جزاكم العلي خير الجزاء هنا وفي الجنان بسم الله الرحمن الرحيم شكري وشكري له سرا وإعلانا هو الذي قد سخى من كان سمآنا هو الكريم النبيل الباسل الورع هو التقي فهذا كان معوانا هو السريف هو الجميل في صفة هو القليل فإن الحق قد بانا هو المريد هو النبي سوى حكم يديم سكرا وشكر الله مولانا هو الرشيد هو الداعي لقارقنا تبارك الله رب العرش رحمانا بالعلم والصبر والإخلاص قد حصل مجدا وعليا فهذا بان تبيانا يمشي الهوينا بلا فخر ولا مرع يحيي الليالي نوافلا وقرآنا وينفق المال للإله دون رياء الله يعفسه شرا وإعلانا كأنه البعر في جود وفي كرم يهدي المريد إلى من كان منانا يسلم قلب الذي قد جاء سادنس فإنه مورد الحبشان ريانا لاخر ورباه شيخ الجيل سارعنا حتى خدا حلما يحدى به اللانا يا ليتني كنت ذا علم ومعرفة سأمده الشيخ كي أعوس رضوانا يا ليتني كنت شا علم ومعرفة سأمدم الشيخ كي أعوز إدوانا بجاهه أدم الإله خالقنا فتحا وفهما وعلما ثم عرفانا تمت خزيدة تمت خزيدتنا في مدح قدوتنا حمدا لراشقنا الرحمن مولانا صلاة ربي مع التسليم دائمة على الذي جاء فردا ثم مسنونا والآل والسعب مع قديمه أبدا ما قال عبد بتسبيع فسبحانا سني الحاج جاي سني الحاج بسم الله جمي باق سرين توبا نسامبر ممو يمبر سامبر ممو يمبر يي تمبر يسيخ بامبار mo gën taraw ñepp ñe lank mel ni ñu tax sa mbër ma moy mbër sa saa ma moy mbër mi jitu mbër yi cheikh bamba mo gën taraw ñepp ñe lank mel ni ñu dëx mbër waada cheikh bamba la ku xam du sikku ko al hadi njaay bakati ni mbër du tuur sa ki bi di lox mel noonu sëriñ moo def këll fit wa dawul du tiit jàng lixlaas xol yu noon ya di bax mu kenn laat yàlla mooy sun buur ku mooy ko buur ñuy jaam yu rëy moo waral seen xol ya bax ba wañax kamuy ragal yàlla lay doon ñépp far ko ragal ibliisu jaaxle ci moom lottit ci waaju mu sox kamuy ragal yàlla doon ñépp far ko ragal ibliisu jaaxle ci moom lottit ci waaju mu sox fu mas li nekkit dafay def néegu yàlla ndaxam wéet boroomam la daa dëkkee ku weddi torox tuubal na tuubal na tuubal lim bu kenn xamul ci nete kiy junne iskay sëñ bi moom ma tawax moo am lu faat ñépp fam jaar dëkke fam jaar kenn dootu fa jaar lim daj keneen du ko daj kuy gor na gor di ko jox murid tijaan qaadirat laa yéen ba war nanu koo sant nekkat bu du woon tukkim bi lenn du dox nekk bam daloon ca Dakar bum donkaneen dana dof baa sax mu xaddi di yéefar amoon di pëndax wiir wiir yi ndar géej li wiir ak ndakaaru gaboo galwaa ba sax saara fu mu jaar barke des fa di dox fa sax sang baax a tax tey ñu baax Seex Bàmba buur ak a fay muy làmp bopp dootu fay turam wi fañ na ko tax yaay sun sëriñ mat sëriñ sëriñ si yaay ki ci gën yaay fal di folli di tin yaatee ñu naan aka tox mbaaxum sëriñ bamba fun dendeeg sa mbaaxu sëriñ boo moytuwul xaddi def leen gaynde bu wuru si ndax yow daa way di kañ yoneen ba bam na la cas def la nga doon moom ma doon sa bindkat forox wax naa ba sonn te waxkat mun la wax li ma doon tee ma taxaw lu ëllëg dinaa woyaat lu fa tax musal ma aar ma te dottil ma lu baax may ma xam-xam ma am xoram it doon sab géwél la ma seex ma gudd fan wér te sax ci bëgg koo ma sa yar bëgg la fawu te man way mel na gaa ya nga jox barke bi yeneen baat ku jib saaba ma dam mu xalim gi tëj sama daa fa jaajëf sëñ bi moo ma ta wax barke bi yeneen baat ku jib saaba ma dam mu xalim gi tëj sama daa fa jaajëf sëñ bi moo ta wax bismillahi rahmaani rahim salaamun aleykum laa di nuyoo ñi teew ak teewul ndaxte daa war salaamun aleykum laa di nuyoo ñi teew ak teewul ndaxte daa war ma jiital ci sëñ Cheikh Sidel Mokhtar di ñaan yàlla guddal fan wi jiital ci sëñ Cheikh Sidel Mokhtar di ñaan yàlla guddal fan wi jigéen ak góor mag ak ku nekk ci yéen jox naa ko ab cër di bëgg lool ci teewaay bi ngeen dikk saaga di bëgg lool ci teewaay bi ak yëg gi ngeen yëg ma tax ngeen dikk saaka di bëgg ci teewaay bi ak yëg gi ngeen yëg ma tax ngeen dikk saaga cofeel xëy na taw tey sa ëttub xol ndoxum mbégte mee tooyal samay sa fi ngeen dikk mooy kàccam ngiraaneen na ngeen war na ngeen na ngeen way ba ñi yëpp farxar fi ngeen dikk mooy kàccam ngiraaneen na ngeen ba miir yépp farxal ne waa Moltaxa fuñ teew mu xar ñaar na ngeen tas tasal suñ koñ bi muy bar ne waa Moltaxa fuñ teew mu xar ñaar na ngeen tas tasal suñ koñ bi muy bar bégal mag ak ndaw jigéen góor ba ngeen xam ne taalif yéen a ciy mbir bégal mag ak ndaw ak jigéen góor ba ñëpp xam ne taalif yéen a ciy mbir fu ngeen dem ci réew mii def ko ab doom Dakar Mbuur ba Kaolack Louga ak ci réew mi def ko ab doom Dakar Mbuur ba kaw Louga ak Ndar na ngeen ko toj ba am bës dooni star ku leen mësta gis it dégg seen tur na ngeen ko toj ba am bës dooni star ku leen mësta gis it dégg seen tur fa ahlan wa sahlan marhaban bikum ci sun ëtti xol yi mbégte mee dara fa ahlan wa sahlan marhaban kun. ci sun otti xol yi mbégte metar ki don jema way modi dam daam damay gor di naar piir doon sëtu mbër ki ngeen don déglu lu modi dam jaañ damay gor di naar piir doon sëtu mbër ki don jema way li modi dam daam damay gor di baye faal don sëtu mbër kon ñu jàllale genn xasida bu xamante ci serigne touba la fokat faqat sampetay naa ko gor dag gi sot di gañ waaja xëy bu boole mbër yëpp fët faqat sampetay naa ko gor dag sot di gañ waaja xëy boole mbër bamba lay way ki jar japp mooy te koy roy dëkke way ko bay joru kat kiraw ñepp gën ñepp man ñepp foof di sangu mbindeef yëpp tay gën di nit kadar buura ko yonenam top leen ñu fal ko wajangi bamba kamat ki lee tepp moo topp moo sopp buur ki lee sell sàlloon dam yëpp kat ka jar pëng jar bind jar dand itam sëñ way ki tax noon yi rot ka ñu xoj diine pëndal ko tër xomaagal ko tënk ko daaneel ko njatt mu tinkil ko tënkam yi xajjal ko far xomaa jànka tingom ko ajkee mu xat ci fekk islam sa ndeew jëm sa ndëx mu bon naat ko seggaat ko muy gën jibal ki lay fekk xuraan ñu wax ay yoxoom ci waggam nga muy ndundunuy wallukat mu dekkil ko sëjjil ko xob yi nga xam joxaat kat dayoon bamba yaa sellkat ki lay tax nu nun ci ak njàngotal nekkoon santan santanti koo war nu nan santikat ki tax nu nun ci ak njàngotal di kon sant koo war nu nan santikat damay sant man jaan ji rabbi bayit di jox Bamba dox képp ko dul sant kat salaatan salaaman alal Mustafa maal ali wa sahbi fekkal di nit ngi jégg lu baax a baax jàkka njaay waaw mu tax bu baax a sëriñ maam xam sa diine ndax bu ñu duggé ci mu tax mom bi moo ñu dugg ci ndax dafa am bis ñuy waxtaan ba ñuy wax ci mbirum talif mu dal di ñuy ku len fi ak ci li nga xamantene ci lañuy yëngu ci lañ jënde carte ci moom daal di dugg ci kuréel bi ba yàlla defe tamit waa kuréel bi boole ñu ci biir liggéey bi boole ñu ci bureau bi jox ñu ci ab poste ñu ànd ak ñoom liggéey bi di sant sama mbokki bopp yëpp ñi nga xamante ne teew nañ fi di sant suñu waajur yi nga xamante ne bàyyi nañ seen yitte te toog di ñu teewlu ku mel ni suñu baay Abdou Diagne ak suñu baay Pape jañ ak suñu baay Ndéli mi nga xamante ne xasida Sëriñ Tuubaa ak Sëriñ Tuubaa képp moo ko ñor ba képp koo xamante ne naan xewle ci mbirum diine day bàyyi itteem yëpp ñëw di sant it suñu nijaay yi nga xamante ne teew nañ ku mel ne suñu nijaay Omar nga xamante ne dafa waroon a gont bàyyi itteem yëpp te ñëpp xam nañ ne àdduna moom ku liggéeyu doo jariñu doo jariñe waaye daa bàyyi ngontam ne waroon a gont ñëw toog di ñu loolu rëy ci ñun lool ak rakkam As mi ngi ni toog di sant suñu mbokk yi nga xamante ne teew nañ yëpp suñu yaay yi. ak suñu bàjjel yi ku lim juum wala boo juumati doo matal di ñaanal suñu maam Adja Diakhoumpa suñu borom guddal fanam lool tam wér di sant ñëpp ku mel ne Mansour nga xamante ne fi la yendu ak ñoom Yaaram Diagne ak Serigne Mame man Gueye bi nga xamante ne jàngalekat alxuraan la kon kuréel bi li nga xamante ne moo ko tax a jug mooy ñoŋal kàddu olof di way yi nga xamante ne mag ñi ñu ko doon way ñëpp xam ne taalif day dindi stress nit ki mën naa a yàlla suñu borom def mu am mbégte te xale yi nga xamante ne dañoo toog ñëpp taalif suñu borom dafa def ne dañ koo bëgg loolu it tax ba fu ma fi nekkee dañuy ñëw ma leen koy tegal ñu koy déglu kon lii dafa war képp koo xamante ne bëgg nga ci bi boo jokkoo ak ñun dañ si dugg ndax am na ay quatre membre am na ay conseillers ñuy taxaw ni ko Serigne Cheikh Sylla nga xamante ne moo jiite liggéey bi waxee kon mbégte gi daal yaatu na yal nañ suñu borom taxaw bu baax a baax a baax defal ñu saxaaratu daare yi defal ñu nooru daare yi ak mucc àdduna ak alaxira suñu borom gën ñoo xiir ci loo xamante ne xemmem téef Seexu Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul la te mën ñoo xiir ci mboolem loo xamante ne yàlla gërëmoo ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi yàlla sunu xol dafa sedd ci moom euh, jamono ju xat ji rek waaye sax lañ waaye moo tax ñu wax rek ne ajaajëf sëriñ daam ne bég nañ ci yow sa baax jaañ wallaay moom xajul ci bayit Adja jëf Serigne Dame ne bég nañ ci yow sa mbaax jaañ walaay moom xajul ci bayit dangay mag ci ñun jot dangay gungenu ci sam xel sa poosit dafay def lu dangay mag ci ñun jot dangay gungenu ci sam xel sa poosit dafay def lu mat moo la ñor waaye buur bii gëmul te Sëñ Bàmba kum fat du jàmbat du xat walaay mol taxaa jëpp naw nan sa jëf dañuy ñaan nga wér dundu téeméeri at walaay mol taxaa jëpp naw nan sa jëf dañuy ñaan nga wér dundu téeméeri at wasalaamaaleykum bàyyi naa la Aïcha doxal boo yeboo nga buur dana fax maa la tàbbaloon sama xol fab cofeel ga daan la jalax loo diggal ma lum mën a doon it ca sansa rekk ma yox say lorog yu tiis ya nga may teg ma nangu lépp su tar bu yéena yirɓe ga salloo waral ma mel ne ko fun jano ma tiddi la ma jël di ka tiddi wala tey na fi caqet di la rangal di tel yi waxa wax ñeer nga yow samay ndoxituñ fof ma fulli nek sama yah lem bu xëpp la la tegoon goy dalal samay taxi tax ndeke ñay bu kaw gën waxe bir ga man na tang te wex fekk na la ay sa ngadi ñes mu da nga dara tax xey nga rawa su ci man mat saw yaram ba mu lax bayo mag tawat dulon tal mocce kat yi yop le sax dëx wu tax di seeyal nag yéemu naa ca woowale dëx saxu sax ci sen fu ne dëx sax du teemu gor di palah Bayi naa la bàyyi bu ndox soobu géeji wayi di jax war ca gal ya xëcc ca mbaal yooyu na paatu lu réew yi lax gaare jàpp ya kumar ndax tey ma def ko ci seppi for ya nos ko di jox mbër mu mag ma tek ca di nax naa ko ma doy ci lu ya yaa ya, ma saf safeer bu ya, du nax maa la bëgg a bëgg ba far bëgg képp ku sopp la sax sag cofee la gaw sama sa yoon yi te wëgguma tax tey ma suura suuru ba di tifli yi xikam yu ñëpp di wax si Habibu Mbàkke imaamul imaam yi yaay ki jëñax réer ga woon ba tey ma tëggal law te génn wu rëy na fi tax asibam andi ay béy xanaa bëri wu نخاي مومو يم ان باغاي نختيب لا سخنا عمر تاجل ني نخاي مومو يم ان باغانيو غينار يو تري سافي دينجيري ني روف كو تما كو سير سافي نو تيب بوله كو مو اورني ليپ تي اينن اك اوليف موي مسلوي واي ndaw سيسات يال نكو يالا فاي دا ñu wér te gudd fan te dégg maam yi ko yàlla fay te fay sëñ ñu wér ñu wér ñu wér gudd fan ba dégg maam yi salaamaaleykum wa rahmatullah waaw doy na sax na neex bari na tudde naa ko femme de classe ñii ginaar yu riis ma gis woote ñu waas wut rek nga jox ko muy ci poobaram ji njeey la ci dem guubu roox bi may nana xaar doole doog melam bi bi mu yox jar na guub bi ab la gas jar na tay la say bi lool yaay sama ko gas jërëjëf fekk ko ci teewul dañuy teg ci wàccuwaayu kawe di ñu toppatoo ñu ngi ñaanal mboolem ñi dëkk ci ko benn yokk dal gi te teewloo jekk rek ñu doxal mu mel ne xasida gi narum ko war a jàllale waaye mbokk yi noo ko sàkku ji ñun Serigne Dame Ndiaye xam naa ne sax wóorul ba xam ñu ngi mokkal ba léegi waaw. ñu ngi ko defoon ci jamonoy màggal gi passé na waaye ba léegi mën naa nekk ñu waajalaat ko dem jëm déwén ndax màggal moom bu ñu màggalee ba suba ga rek mayees na koo commencé waajalaat bu ko defee di ngeen may jaraw lakkal waaw yéen ñi fi nekk yëpp rek man ngeen ñoo jaraw lakkal ñoo ànd jaraw lakk ka jël ak si jaadaam lal ca kaw géej ka jël jaadaam lal ca kaw géej ya allahu kàbbar yàlla jeexul gëtëm ak si jaadam lal ca kaw géej ne am laahu kàbbar yàlla jeexul jaraw lakk fitam waag dogoog gàggam nga moo tax nga jaraw mu raw gaaña fondam kenn seenul jaraw lakk bisub mbër bisub jàmbaar bisub maane jaraw lakk ne bu dee ñëw nan ko waajal jaraw lakk damay war fasu far dàq njaabal jaraw lakk ko wër ngir yëgle màggal am nga jaraw lakk danaa dugg gépp jeexal ma takkaat sama ñëw fas dox ba tuugal dem Amérique dem Europe man siin na ngeen bi tuutul ka jël rangoo xam boroomam te kennal ko def jaa andi màggal ka jël yén na nam doon jaam di liggéey ba am fay gii di màggal karaw gaañ raw maasam ci quraan da jiitoo ba am bis bii di màggal fu waay man di nekkit fii ci dunyaa bu dee yëg nga bis bii nangu dikkal amul ñàkk paas foo nekk waajal ne booy jekk am luy ñëw ne yéegal avion otoog raay ñëpp a ñëw afiya odogra ñepp fi ñew moto yeeg sareet day kocc koccal ku fa lay màggalug sin bamba day saas ku fa lay màggalug sin bamba day saas ku fa lay màggalug sin bamba day saas ci ñun bis bi tuutul buñ nga tuutal ginaar bay xaral te ay ndekki bis bii nan ko neexal dana mis mi def ay macaroni salade vermicelle loo bëgg laa jël du fekk ndambe saay sax ñu jeebal la andil la tey bég naan la lekkal lu la napp nag andil la torson café meew ataaya naan la naanal banana ak orange pomme mango day ñëw. jàkka jaraw lakk. banana ngi daf jàll. ananas puwaar ak ñoom papaya. kele mante ngir ne sooful. binin mat coca ak fanta feles yaaf. binin mat coca ak fanta feles yaaf. gesel espérant am na sabdal sidi tokkanet duñ fàtte am soow sidi njër itam day ñëw ci màggal te ya quraan di junni junni kamil la nuy wàcce day si kar di sellal xasiidaay sëriñ bàmbaay sunub cër xasiidaay sëriñ bàmbaay sunub cër xasiidaay sëriñ bàmbaay sunub cër ñu koy jàng koy daaj addi neexal borom bis bi woote mbaa di tuubaa ku dikkul ba de waat na ne jékkul wallaay màggalug sëñ Bamba day saas wallaay màggalug sëñ Bamba day saas wallaay màggalug sëñ Bamba day saas nga tuutal Mouhamed la docteur looy ci doon da màggal waroon aw fas di njaabal di ñaan yàlla guddug fan ak mu doon lil ñu kàttan jox ñu salatan salaman ak sahabam ya ak seen bu mag bii woote màggal salaatan salaaman ak sahabam ya ak seen bu mag bii woote màggal wasalaam Seex Bamba mo jara am gëm len ko am len ko bañ wo yéen te ngeen wat fedar bu daanu na ndar te mbeere ñom duñu mbër Seex Bamba nga di mbër wax na ko delu waxat teewul batay senegal bari na wàlli lool waaye buur bi bàmbal la takkal ko ngën gi garab wahabi yu nay sax dafuñ ba lay dëkke wax lu ñaaw ne xam nañu ñax du sax ci ay koroxaat dem nañ ba jàppe ñu dof ndax bàmba dong nu saf bu dee ne lee tax a dof suñ dof bi yàlla na lu fat dof yaa ngi sangu di noos yenn saa ñu xotti lu